alhamdulilah bon man maa ngi maa ngi nekk ba Maroc bon euh, c'est-à-dire maa ngi joxe sama avis quoi si maîtresse dem bi maa ngi vidéo bi nga def ci ki yu leer macha allah ay leeral yu leer ay analyse yu baax macha allah mais bon man sama ki sama kàddu maa ngi ko yëkkatee gain ci ñaari question yi nga posé comme question bi nga ni joor ak birom Euh, jàppalante moo fam wala mbëggeel peut-être mën naa ni jàppalante am na fa mais it xaw na fa feeñ quoi mbëggeel feeñ na sax mais it aussi mbëggeel gi joor moom day calculer waale xaritam xaritam bi nekk doon sëy ak biram waaw si deuxième question bi ngani ni paa bi paa bi est du waa ji noonu paa bi papay rakki la boobu moom wax dëgg yàlla amaguma si xel mu xóot quoi ah parce man waa ji ngi koy wax man seetaanu ko xëy na peut-être waaw di la remercier aussi analyse am na solo trop ok merci beaucoup. salaamaaleykum sëñ si loolu nekk mbaa yéen si jàmm dama bëgg a participer si question yi euh, biram ak Dior man gis naa ni mbëggeel moo fa nekk parce que biram am na sentiment si joor parce que biram bu toogee gisul joor sax dafay mel dafay am lu ko manqué joor aussi tam noonu bugul day bëgg di def benn affaire bu daw mais day am xol yi yërmande te xol yërmande fu mu dugg rek sentiment dugg na fa man loolu laa gis ci question bu kii bi beneen bi maxem amul conseil parce que bien vrai que am na benn conseil boo xam ne moo ci kër gi di ko conseil mais parent lu am solo la ci doom waajur lu am solo la ci doom parce que yaayam bu wéroon instant lii mu def nii du fa teg tànkam parce que yaayam dina ko conseil parce que am na dëmm rey la ba pare di la jaale man daal loolu laa amoon lu may wax ci question bi merci. xam nga man lan laa mën a comprendre bu fekkee papa Rugi moom euh, moom moo violé Rugi Euh, lan moo tax Rocky moom xàmmeewul papam ba di ko sarax di ko di ko am am ci moom sentiment boo xam ne c'est pas possible kenn mënu koo mu jéggi na day daal dama yaakaar tey boo amee sa waajur mu violé la loo gën a gën a nekk xale parce que damay dégg souvent ma ngi naan euh, xale de mémoire am du fàtte du mus a fàtte léegi moom dem na ba nekk mag mu ngi jël di sarax papam am ci moom cofeel yërmande boo xam ne euh, man loolu moo ma xaw a jaaxal parce que est-ce que bu doon papam dëgg dëggantaan papam bi ko jur moom moo ko def looloo te ba mu nekkee xale la est-ce que moo waru woon toog wala jour bu mu ko njëkkee gis mu am benn yëg yëg bu graaw boo xam ne bu jóge ci moom mu xam ne kii ñu xam ne kii nii am na lu mu ragalee kii quest que ça passe mais xoole yërmande la am ma loolu jaaxal na ma trop sama question boobu na laa bëgg ngeen jàllale ko eh, ma xam eh, fu muy mujjee. salaamaaleykum wa rahmatulah waaye maa ngi lay ziar bu baax sa site internet ah maa ngi dégg lu bari sax eh, ma gis cité yi si cité comme pas bi nga wax ne moom ne mooy ñëw ci tànt bi noonu def fekk rek ñu fekkante fee rek waaw man xalaat naa ne xalaatoon naa ne mooy papaam même rek rek moo tax man li ma xalaat mooy rek lan moo tax moom mënut nangul grand bi li nga xam ne mooy mbëggeelam lan tax nangu mën ko woon nangul ak la moo tax lan la si xalaat daal ak lan la si ragal loolu daal bëggoon naa xam comme kaaw kii nii ñaareel bi may fàtt tur bi kooku noonu maanaam dugg na sëy moom jàppoon na ne bu duggee sëy bi maanaam dina am li mu bëgg mais bu bi ba tey jàpp na ne moom gisi gisigu daal lu ko neex ci sëy bi est-ce que yoon la pour moom mu continuer sëy bi wala moom daa il faut que mu arrêter sëy bi ndax ki mën a nekk ndax aaw moom est-ce que moom tamit buñ ko waxee ne takkale ñoom ñaareel rek nii la war a réagir daa war a dof wala wala euh, affaire bi da ko ëpp doole wala ñu takkal ñaareel nii ngay mel moom waroon naa mën a ànd dignité mu ngi liggéey am na moyen te bëgg na bëgg na jëkkëram jëkkëram bëgg na ko mu ngi ñaama moom njaboot moom kay na tee rek après dékku ko mën naa dem ba sax ki nga xamante ni mooy jëkkëram li mu gisoon ci si ñaareel bi ba takk ko mu gisoon xale bu jigéen ba mën naa dem ba xam ne nekkul ci xale bu jigéen bi xam ne ne awam bi amul lu ko ëpp na gën a dellu gannaaw pour man mën na ko fajee noonu ba muy jéem a dof wala mu koy muy dugg ci yeneen daal. salaamaaleykum na ngeen def man la man la Binta man maa bëgg a participer si maîtresse d'un homme marié. waa laal la moom day taf taflu rek ndaxte laal la man bi seex di doxaan mu xam ko ba seex takk mu am lu ko métti ba muy dof kon laal la kon doful day taf taflu rek mais deful jikko jikkoy aawa mën na ko gérer comme mu doon mu doon doxaanee mu xam lépp mu gérer ko kon kay moo na ko gérer mu takkee moo tax man laal doful day taf taflu rek mais doful waa kay loolu laa mos li may salaamaaleykum salaamaaleykum ça va na ngeen def naka euh, seen journée tey bi ça ngi si jàmm bu baax naka yi tey naka mu naka liggéey bi ndax mu ngi dox bu baax waaw mooy toujours li leen di wax tey def naa ni feeñ na en fait tey boo xoolee épisode 31 gis nga biram ak euh, hmm, booy booy gëlam bële xam joor gis ngeen biram ak joor annonce bi ñu wone tey donc toujours ma leen di wax rek joor euh, moom dafa mës a bëgg dafa mës bëgg euh, parce que am na genre jel yoo xamante ni genre jigéen yoo xamante ni ñoom dañoo bëgg genre góor yoo xamante ni comme Birame ah, xam nekk gaañ boo xamante ni faalewul dara di naan di mandi booy si xam mën waxtaan ba pare en même temps nekk nit koo xamante ni voilà mooy li ma leen di wax nday sonal jigéen tout le temps xam nga dafa xam fi muy jaar jigéen parce que ñoom yàlla moo leen di bindee noonu dañuy am jigéen ñi dañuy am seen faiblesse de trop sax donc tey boo xoole épisode 31 wane na côté biram xam ak voilà euh, mu ngi noonu quoi xam nga wane na côté boobu léegi ñu ñëwaat si cas Jalika Jalika chaque jour chaque jour que chaque jour Jalika impec voilà jigéen euh, jigéen boo xam te ni royukaay la si jigéen ñi léegi xam war nañ si roy war nañu xool comme Jalika ni tey am fula day am bëgg-bëgg en même temps nit day am gëm-gëm jigéen dafa war am gëm-gëm mais nag surtout personnalité jigéen wi koy gën a kii mooy personnalité comprends donc euh, voilà man Jalika chaque jour nice yooyu bu ñu ñëwee si kaawu xam nga ñëwee si kaawu raaki raaki tey wane ne moom tey bëgg feeñ na si moom en fait nit ñi dañ doon jort naa bëgg la wala xam mais bëgg la parce que nit di ngeen toll foo xamante ni daf lay bëgg mais du la ko mën a wax. léegi liy poussé seen relation mooy que ah mbirum góor lay doon ko xam nga yow yaay ñëw nekk góor wane na góor nga xam nga dëgg pour mën a am dara mais boo fa continuer hésiter à chaque fois que xam nga qu'est-ce qui se passe suñu relation kañ ngay dem wala kañ ngay xam tout le ngeen di nekk en fait boo wax loo métti doo dégg loo métti yéen ngi naaj yéen a ngi nii mais doo dégg nga bëgg a dégg donc yaay hésité def li nga war a def donc euh, mu ngi noonu daal kaawu rakki mu ngi noonu rakki dafa am ñaari kaa te man euh, tey gis ngeen euh, médecin bi ak yaayu rakki en fait. am na lu mu dindi sax si maire bi maire bi yu mu doon tàng tàng yëpp man gëm naa ne su delluwaatee seen nouvelle bi fi ngay commencé à cause de médecin bi te boo xoolee effort boobu yëpp xam nga Moustapha moo ko def boo xoolee effort boobu yëpp à cause de Moustapha moo ko moo moo moo moo def lépp bien vrai que booy baa ngi koy fay li mu defoon yëpp si moom mais tamit Moustapha c'est bon. Moustapha nice nice mais nag Jalika mooy lépp appel bi xool ñun Jalika parce que moom mooy lépp dama ko naw quoi dama ko naw franchement